lu ginnaaw opposition bi ñoo koy wax ak activiste euh, ban ban kii nga ci am ban jàngat nga ciy def. jàngat buñ ci am moom mooy loolooy dëgg parce que Macky Sall benn buggul wujje ku jéem a wujjeeg moom mbaa nga wane ne bëgg nga lu mu bëgg mu fël la. mu dugal la kaso non mais c'est lui qui fait ça loolu xam nga ko. Abdourahmane amul problème ak justice parce qu'il n'a rien à se reprocher. astafurlah Abdourahmane dafa bëriwul wax ci wàllu problème boppam Abdourahmane ci li nga xam ne moom mooy li nga xam ne moom lañ koy bundu xataal Abdourahmane lu mu dund ci Sénégal fii depuis bu mu fi avant mu fuy ñibbisi ba fu mu ñibbisi ba fi ñu nekk nii ñu la ko waxoon sa nopp toj lu ne def lu ne ah dem nañ ba bëgg a nangu këram ba bëgg nangu këram façon bu ne def nañ ko façon bu ne mais xam nga Abdourahmane yéen xam ngeen ko sénégalais yu bëri xam nañ ko bon il a un discours très mesuré très policé yaru bugg la waxal boppam parce que comme on le dit comme l'autre le dit le moyen ay saab loolu la gëm bugg la wax. ci boppam waaye lu muy dund yàlla rek a xam bu amoon luñ ko mën a rapproché ak lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw xëy na tey jii nii justice dina jóg. parce que ñoo bëgg a wax foofu mooy ñi ñi ñi am problème ak justice bañ naan Macky saal moo nekk derrière est-ce que aussi euh, bu fekkoon ne amuñu lenn loo xam ne euh, taqal na leen wala dara dina demee nii. non Abdourahmane topp ñu ko parce que dafa def nangam topp ñu ko parce que dafa wax nangam xam nga foofu moom. il est clean. voilà kenn mënu ko topp ci loolu waaye nag dañuy xool dañuy xool ci la nga xam ne moom lay def mu légitime légal sénégalais yépp di ko def chaque jour ñu toog di ko bundu xataal ci loolu bugguñu mu liggéey kër gëm mu moomal ci boppam ñu bëgg koo nangu yu mel noonu yu sew te loolu moom moo nekk nguuru Macky Sall moom moo nekk. mais aussi est-ce qu'on peut permettre ay citoyens ñu wax lu leen neex ci état ci magistrat parce que arrestation yu mujj yu ci bëri loolu koy expliquer. non man jàpp ma ne nit ñi dañuy wax lu leen neex. am na ay yu garaaw yu jógee man kàddu yu garaaw am na waaye dama la ne lu yëngu li ko yëngal moo ko ëpp doon kaddu garaaw am na waaye nit ni nga bënd uude ni nga ni nga ni nga bindoo noonu la lay ëwalee loolu moom moo fi am man ma ne am na cadre yoo xam ne c'est excessif li nga xam ne tooñ bi moo excessif ku la tooñ nag wax dëgg yàlla mhm. ah di la duma di la def lépp boo mënta dara mënoo tus ci àdduna xanaa di nga wequ xam ah, ne docteur wequ nag moom moo fi ne docteur li xew ci dëkk bi dernièrement dooma ne da nga koy rafetlu manifestation yi pillage yi saccage yi am na sax ñu ñàkk seen bakkan à la Médina rey nañ fa kenn tey à Bignona nee nañ am na kenn ku fa dee maanaam yooyu aussi doy na waar. loin de moi mënuma koo rafetlu bokkul ci suñu ligne de conduite ñun suñu parti gëmuñu loolu. Mhm. gëmuñu rey gëmuñu euh, saccagé gëmuñu yàq alal jàmbur gëmuñu saaga jàmbur gëmuñu tooñ kenn. Mhm. li ñu gëm du loolu loolu dama koy naqarlu waaye nag dellu encore di jaale ñi nga xam ne ñoom ñoo ci seen bakkan ci la ci des dellu aussi di jaale euh, suñu suñu concitoyen le maire de euh, Fann Point E, euh, e monsieur Palla Samb mm-hmm. di ko jaale njabootam di ko jaale sénégalais yëpp di ko jaale aussi toute la communauté sénégalaise mais li nga wax nii ñun dañ koy naqar mënuñu ko rafetlu fi dee am foofu vraiment ñun on ne peut que se désoler on ne vraiment c'est la consternation. mais li ko indi mooy fipp bi li ko indi mooy ñu ne la bul def nga ne da ngay def manifestation yi euh, ci lépp la base li ko tax a jóg mooy nit ko am problème ak ak justice est-ce que mënoon nañ egg egg foofu waroon nañ fa yegg laa bëgg xam nga da nga ne fipp ku fippu ça veut dire dañ laa tegloo loo attanul fippu nag moom mooy résumer lépp. non ñi ci mbedd mi di manifester fippu lañ ne. non ni ñu ko teg mooy les hommes politiques yéen yéenay yéenay yéenay yéenay wax gars yi ñu génn. te dara du leen arrivé vous les hommes politiques. non non non non non non non non je ne crois pas que mu demee noonu gëmuma ne loolu la demee yow ci sa bopp xam nga ne demeewul noonu Sénégal ci boppam fu mu ne nii yow xam nga ne dëkk bi li ñu ñun ñëpp la ñu teg coono le nii oui nii non les institutions qui sont qui marchent de travers eh, li nga xam ne ku ma am ndey ak ku ma amul ndey. li nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi nu ñuy doxalee ak lu ñu wax sot lu ñu wax dagan na lu ñu wax ñu ne gonga te bu ko keneen waxee musiba am mm-hmm. loolu moom mooy indi problème bi fi ne dëkk boo koy jiite da nga koy jiitee njaaxanaay muy yow en tant que président de la république muy ñi nga xam ne ñoom ngay àndal te ñu bëgg bëggal la jàmm bëggal dëkk bi jàmm uh-huh. loolu moom mooy problème bi